yow añ bi pareegul ah kaa wax waay lu sum trop ah man na wax yi waay wóoy ah yi sa yuuxu yi man mun nga ko tey moom aw ma lekk dogal ko rek moom nga yuuxu foofu li nga xiifee noonu laa xiifee man mii sax dama xiif ku baax ku baax fii koor dafa jóg ku baax lan la dara man mun naa ñëw fii nii nii nii ñëw nii nii toog laajoo ma lu xew yokk nar naa ko fay de ak tabaski gii. ma xamal leneen. billahi billahi sama xar bi ñoo doon fi yow. billahi sama xar bi ñoo doon fi ah biscuit bi ñeex na. li ngeen xiifee noonu laa xiifee rek bu yeboo ngeen noppi foofu. dañoo lekk. kon bu dee man rek doo fi lekkee mu yoo lekk daal boo ko amee danga bokkee waay moo taxit doo fi lekk ndax biscuit mi daa am man ne mayu ma la Sénégal kenn du bokk lekk yow dootul la. waaw ku baax ku baax ku baax neexal neexal ma la nii ba tey yow mënoo maa mënoo fexe ma ñam dama xiif. xanaa sama digg lekk moom. ba ma jógee ngay lekk. waaw tey fu ma jógee boo naa tey tayoon naa tey aw ma dara ak leen seen njëriñ tey doo leen wax naa la lu leer nañ waaw quoi léegi dama may. keroog ci bis ba